alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala rasulillah bokk yi noo ngi dellu di sant yàlla suñu boroom tabaraka wa taala di julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam te di leen nuyu ca lislaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokk yi gannaaw loolu incha allah noo ngi fas yéene dellu waat ngir àndaat ak yéen ci sunu fàttali tafsiir moo xawoon a gëj am lool waaye incha allah nu fas yéene ko sof ca fanu yamoon ak fanu yamoon ci sunu fàttali tafsir gi mujj noo ngi nekkoon ci suuratu naba i ba amoon ci ñaari bind bind bu mujj bi nu taxawoon noo ngi yemoon ci laaya fanweer fi sunu borom di waxee fa duuqu falan nazidakum illa adaaba kon tey nu war a tàmbale ci laaya fanweer ak benn inchaa allah mooy fi sunu borom di waxee inna lilmuttaqiina mafaazan sun borom tabaraka wa gannaaw ba mu ak ña nga xam ni dañoo féttéerlu tey nag mu fas yéene wax ak ñi nga xam ni ñoo topp ndigalam ñoo ragal yàlla subhaanahu wa taala yàlla ni inna lil muttaqiina mafaazan yàlla ne na xamal ni kat dana ñeel ñi nga xam ni ñoo ragal yàlla inna lil muttaqiina xamal ni dana ñeel ñi ragal yàlla ma mafaazan ak texe maanaam ñi ragal yàlla danañu am ak texe gu kawe lool gu màgg lool mbokkum jullit ki ragal yàlla ak texeem day tàmbali fii ci ëdduna ba yegg ba ëllëg yowmal qiyaam ki ragal yàlla loolu la am bu dee fii ci àdduna lépp loo bëgg da lay yomb lool suñu borom nee na wa man yattaqillaha yaj'al lahu maxrajan nee na képp ko ragal yàlla danañ ko defal ak ubbee ci lépp li muy dugg dana yomb ci moom yàlla waxaat ni képp ko ragal yàlla danañu ko defal wërsëg wu yaatu lool loolu waxu suñu borom la tabaraka wa taala noonu la ko yàlla subhaanahu wa taala waxee waaye su ëllëgee yowmal qiyaamati it ñi ragaloon yàlla danañu am ak texe gu mag muy lan muy tàbbi aljanna kon mooy inna lil muttaqiina mafaasan kon ak ragal yàlla mooy loolu ragal yàlla nag mooy ki nga xam ni dafa nekk ci li yàlla bëgg ca la man waaye di wattandiku lépp lu sunu borom tabaraka wa taala tere di bàyyi xel lool ëllëg yowmal qiyaamati ak la ko fay xaar lépp li muy wax ak li muy def da ci sóoraale la ca sunu borom digle ak la mu ca tere loolu mooy ak ragal yàlla bokk yi yàlla mu ne nag suñu tàbbee aljanna muy texe gu kawe doyut yemul foofu waaye nag suñu borom mu ni xadaa'iqa wa a'naaban danañu fa am ay tool yu yaatu yu rëy lool danañu fa am it ay raisin loolu soo ko déggee mooy yàlla dana leen fa defal suuf su yaatu lool mboolem xeeti garab yi yépp dana fa nekk waaye doon ay xéewal ngir ñoom ci xeeti garab yaa xéewal ya dana ca bokk firwi bu ñuy wax résin raisin danañu ko fa am ñoom ñi nga xam ne ñooy ña ragaloon yàlla ba yàlla gërëm leen tàbbaleen aljanna danañu fa am xadaaiq ay tool wa anaaban ak ay raisin yàlla teg ca mu ne wa kawaayiba danañu fa am ak ay jànq atraban yoo xam ne nag yépp dañuy tolloo ci at maanaam ñi nga xam ne dañoo góorlu ragaloon yàlla ba yàlla tàbbaleen aljanna danañu fa am ay soxna yoo xam ni ay jànq lañuy doon tollu ci seen digg ndaw waaye nag ñoom ñéppay tolloo ni ko sunu borom tabaaraka wa waajale góor ñi noonu la ko suñu boroom di waajale soxna yi ñoom it kon ki nga xam ni dafa dem ba doon màggat nekkoon ci ragal yàlla génn ëdduna ëllëg suñu borom da koy delloo siwaat ba mu doon ndaw doon jànq bu ndaw kon léegoo-léeg nga dégg ñu la urul ay nii am na soxna yu suñu borom préparé ci aljanna ngir waajale ko ñi ragaloon yàlla fii ci àdduna waaye soxna yi nekkoon ci àdduna doon góor-góorlu ci ragal yàlla ba suñu borom defal leen ak yërmande ba tàbbaleen aljanna ñoom it daanaka dañuy dàq sax urul ay nii ñooñu loolu la sunu borom di waajale ñi ragaloon yàlla waaye nag yàlla mu ni wa kësan wa kësan danañu fa am ay kaas di xaqan kaas yoo xam ne yu fees dell lay doon ak sàngara suñu waxee sàngara nag danañ wax ne ah waaw sàngara lu muy ut biir aljanna waaye déet sàngara sa nekk biir aljanna sunu boroom waajal ko ñi ragal yàlla wóote na lool ak sàngara sii nga xam ni moo nekk ci ëdduna bii nekk fii ci ëdduna nit ki soo ko jëlee nga xam ni da koy tàggaleek am xelam muy def lu kenn xamul mbaa mu di ko wax muy def ne ku sàggan mbaa muy wax wax waxinu ku sàggan daanaka summi ay yërëm sax dana ci xaj wala di wax wax yu ñaaw lool sàngara sii am ci àdduna noonu waaye bi am ëllëg yomal xiyaam neexaayam kenn mënula ko misaal ku dul allahu subhanahu wa taala suñ borom tabaraka wa taala rek xam ni sàngara soo sa mel ci neex ak ci xet gu neex wax na ko ci weneen saar nee na aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha fi tafjiran lu ko jiitu sax dafa wax ni xitaamuhu misk nee na xet gi dafa mel ne que parfum misk moom sàngara soosu waaye neexaayam kenn mënula ko misaal ku dul sunu borom danañu ko misaal rek ci sunu dégg-dégg fi mu toll waaye ak neexaayam xel mënu ko xalaat lu dul allahu subhanahu wa taala rek ko ko xam ni dem àjjana nag danañu am sàngara yooyu ay kaas la yu fees dell ak sàngara am xet gu neex lool suñ borom waajal leen ko sàngara soos yi nag du bokk ak sàngara <clears throat> du bokk ak sàngara àdduna si nga xam ne soo ko naanee tàggu sama xel moo tax suñu borom teg ca mu ni laa yasmauna laa yasmacuuna fiha lagwan wala kidaaban yàlla mu ñu laa yasmacuuna du ñu fa dégg mukk fiha ca biir aljana ja lagwan ay waxi caaxaan wala kidaaban waaye it kenn du fa dégg wax joo xam ni ay waxi nar la maanaam biir aljana doo fa dégg waxi caaxaan mukk ak wax yu kenn xamut waaye it kenn du fa nax sa morom lu fa waay wax sa morom dëgg la ñépp ci dëgg lañuy ñuy dox ci dëgg la ñuy wax te kenn du fa wax wax joo xam ne dañ naan wax ju soof la wala wax ju ñàkk teggin wala wax ju waxu caaxaan luñ fa wax rek day nekk lu neex lool ba noppi dëggu kon sàngara sii soo ko naanee du tàggale sama xel waaye suñ boroom leeral na ni ay waxi caaxaan sax du fa am jëf jëfi caaxaan du fa am waxi nar du fa am kenn du fa nax sa morom foofa ci biir aljanna ñépp jàmm lañuy ñuy dund ah waaw lii fu ñu ko jëlee neex na lool waaye lii nu ñuy def am ko yàlla mu ne ah jazaan lii kat ak pay la goo xam ne min rabbika mi ngi jóge ci sa borom waaye nag ataan suñu borom defa leen ko ak may xisaaban goo xam ni gu ñu rekk la la gu bari lool loolu mi tekki xam nga jaamu yàlla yi nga xam ni danoo nekk ci ëdduna di góor góorlu ci ak ragal yàlla ba suñ borom tàbbaleen aljanna maanaam lañ jëf naa ko ëpp lool mi ngi mel ne tey yow mi demoon marché wut fa sa ay bagage nga woo puus puus ni ko puusal ma ko fee ñaata laa lay fay mu ne la fay ma téeméer ma yóbbul la ko mu yóbbul la ko fa ngeen waxante nga yëkkati fukki junni ne ko am jëlal lépp kooku da nga koo fay ba wis ko da nga koo fay ba may ko suñ borom tabaraka wa taala noonu la toll noonu lay fayee kon yàlla ëpp na nit ki def benn mu fay ko benn nit ki def fukk mu fay ko fukk déedéet suñ borom nit ki day def benn mu fay ko fukk nit ki mën na def benn sax mu fay ko lu mat téeméer wala juróom-ñaar téeméer wala ay million suñ borom noonu la toll maanaam doo def benn nga am benn de boo defee benn dala koy fulandil ba lu ko neex wallahu yudaaf li ma yasha yàlla mooy fulandi lu ko neex mën nga ko defal benn am milliard loolu mu ngi bokk ci yërmande suñu borom tabaraka wa taala kon yàlla mu ne ak fay la gu jóge ci seen borom waaye nag muy fay goo xam ne da leen ci yokkal ak may gu baree baree baree baree bare waaw borom boobu mooy kan kooku mooy kan kooku mooy rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma arrahmaani yàlla mu ni rabbi samawaati kooku mooy borom asamaan wal ardi ak suuf wa ma baynahuma ak ak li nekk ci seen diggante kon borom bii nga xam ni moo leen fay ba may leen moo moom mboolem asamaan yi moom suuf si li nekk ci diggante asamaan ak suufit lépp sunu borom tabaaraka wa moo ko moom loolu lim ci bëgg leeral mooy ki nga xam ni moo moom asamaan ak suuf moom li nekk ci diggante bi lépp bind ko ki ko moom bu la diggee aljanna ju kawe ak xéewal yu bari aljanna ci ëllëg danga ko gëm kon ku moomul asamaan ak suuf moo fi dara boo diggee aljanna dee su ko gëm waaye suñ borom bëgg na xalaat loo leen ni leen ki leen dig aljanna ji su ngeen ragale yàlla mooy borom asamaan di borom suuf di borom li nekk ci diggante asamaan ak suuf waaye nag arrahmaani mooy borom yërmandey ëdduna di borom yërmandey àllaaxira fii ci ëdduna moo leen fii yërëm ndax li ngeen bëgg lépp mu ngi leen koy defal mi ngi leen di tawal tàllal na leen suuf si tàllal asamaan si may leen ak dund di leen may wërsëg may leen ak wér yaram may leen ñaari bët ñaari nopp may leen aw làmmiñ may leen kàttanuk dox suñ borom di leen jàmmal saa yu tàngoor jotee mu tàng ba ngeen la ngeen soxla bu sedd jotee mu sedd ca la ngeen soxla lii lépp yërmande la jóge ci sunu borom mu defal leen ko yéen ñëpp waaye nag moom moom yërmande ëllëg yowmal qiyaam loolu nag mi ngi koy dencal ñi ragaloon yàlla subhaanahu wa fii ci àdduna kon arrahmaani mooy borom yërmande ju yaato ja ji nga xam ni moo sañ lépp yàlla nag mu teg ca muy artu muy artu ñiy digge amuñ mu ni laa yamlikuuna minhu xitaaban laa yamlikuuna du nu am mukk minhu foofee ca moom xitaaban ak wax ëllëg yamal qiyaam kenn amu fa sañ-sañu wax mukk kenn du fa yëkkati kàddu fii nag dana ko leeral tuuti ci kanam mu ni yow ma mooy bés ba nga xam ni yaquumu dana taxaw ar ruuxu jibril wal malaaikatu ak malaaka yi yépp sofan def ay sàppe sàppe yàlla mu ni bés bii may wax nag mooy bés bi jibril di ñëw malaaka yépp ñëw taxaw nag ràng war a déglu subhaanahu wa taala mu àtte nit ñi mu ni nag bés boobee laa yatakallamuuna kenn du fa wax illaa man adina lu dul koo xam ni digal na ko lahu ñeel ko arrahmaanu yàlla mi nga xam ni moo moom man yërmande àdduna ak ju àllaaxira ku dul ku yàlla jox ndigal doo wax ëllëg yawmal qiyaama waaye it su la joxee ndigalit wa qaala dana nga danañu wax sawaaban lu jub xoj yàlla mu ni yowmal qiyaam kenn amu fa sañ-sañu wax ku dul ki yàlla jox ndigal waaye it ku mu fa jox ndigal nga wax it la ngay wax day wér de waaw kon tey jii ki yaakaar ni ki yaakaar ni diw dana ko dana ko dana ko sauver ci kanamu yàlla ba lu ko neex mu def lu ko neex mu wax naan diw la yaakaar déedéet ëllëg même bu yàlla même même dama ne même bu yàlla doon jox ndigal sëñ bi ni ko waxal loo bëgg sëñ bi li muy wax mooy li wér li yàlla bëgg wa qaala sawaaban li mu koy wax mooy yàlla maa ngi bëgg nga jéggal ñi daan def lu baax ñi ragaloon yàlla même yonent bi alayhi salaatu ëllëg bu ko sun borom ne sal tuuta laajal ñu jox la li muy wax mooy ummati sama xeet wi maanaam ñi nekkoon ci li ma nekk mooy ñi nekkoon ci li yàlla bëgg di wattandiku li yàlla tere bu yàlla ne yonante bi waxal loolu lay wax de waaye nag du ne ko yàlla mooy katu yàlla yeeg bokkaalekat yeeg yëpp jëlal yóbbu àjjana du ko wax loolu de li li jub xocc lay wax mooy lan mooy ñi ragaloon yàlla jéggal leen yërëm leen fay leen ba may leen même bu joxoon digal sëriñ bi it sëriñ bi danañ ko ñi ragaloon yàlla yóbbu leen àjjana waaye du ne ko mukk saay-saay si jël leen déedéet kon nit ki ci boppam buum ni diw laa yaakaar wala nangam laa yaakaar ba tax lu la neex def yowmal qiyaam la fa mën a sauver nit ki mooy ak ragal yàlla inna lil ma mafaazan ragal yàlla képp moo mën a dimbali nit ki ëllëg ci kanamu yàlla yàlla mu ni innama yataqabbalu llahu min al muttaqiin yàlla buy nangu ay jëf mi ngi koy nangoo ci ñi ragaloon yàlla kon nag ragaloo yàlla ci àdduna def lu la neex ba ëllëg yowmal qiyaam nga ne diw laa yaakaar wallahi wallahi wallahi diw mënut ci yow dara <laughs> léegi nag su ko defee yàlla mu ni daalika loolu day al yawmul xaqu mooy bésub dëgg ba bésub dëgg bi nga xam ne amul sikk sàkka faw day ñëw mu yowmal qiyaam bésub dëgg la day ñëw mu yowmal qiyaam faww dina dikk ndax wax naa ko dana ñëw ah day ñëw laa ba fii su ko defee nag yàlla mu ni faman shaa képp koo xam ne bëgg naa mucc képp koo xam ni bëgg naa mucc faman ku bëgg a mucc taxada na jàpp ila rabbihi jëm ci boromam ma aaban ak delluwaay ku bëgg a mucc ëllëg ci kanamu yàlla na nga fexe ba jël sa borom def ko ak delluwaay mooy lan mooy fexeel ba xam li la yàlla sant nga di ko def fexeel ba xam li la sunu borom tere nga di ko wattandiku kon ki bëgg mucci mucc na topp yàlla subhaanahu wa taala ci ay ndigalam tey wattandiku ay tereem waaye nag def li la neex ni diw yaakaar yàlla mu ni déedéet loolu du mucc de loolu du mucc moo tax suñu borom nag mu ni inna andarnaakum inna nikki ñun yàlla andarnaakum ñoo ngi leen di xupp ñoo ngi leen di waar ñoo ngi leen di wattandikuloo adaaban mbugal qariban bu jege maa ngi leen di waar ngeen wattandiku mbugal mu jege lool mi ngi ñëw mooy yowmal qiyaam soriwul dara soriwut kon yowmal qiyaam soriwul mbokk mi léegoo-léeg nga ne ah yowmal qiyaam kañ lay ñëw fii ak at ñaar téeméeri at déedéet yàlla mu ni soriwut li tax soriwul mooy yow mi nga xam ne yaa ngi dund mën ngaa xëy faatu bu ko defee yow sa yowmal qiyaam taxaw na yow maanaam yow doo même bu ah, yowmal qiyaam desoon junni at doo ko fekke yow doo ko fekke sa dund mën na am benn at a ci des wala benn fan wala fukki at wala juróomi at kon yow yowmal qiyaam lu jege la ci yow kon li nga war a def mooy topp ndigali yàlla di wattandiku ay tereem xaar xaar sa yowmal qiyaam dikk moo tax saxaaba bi laajoon yonent bi ne ko kañ la yowmal qiyaam yonent bi tontuwu ko ci loolu dafa ne ko loo ko waajal loo ko waajal kon yow ci sa bopp yow bu lijjanti kañ laa kañ la waaye fexeel ba waajal yowmal qiyaamati ci ragal yàlla gu mat sëkk mhm, loolay jëriñ su ko defee nag yàlla mu ne yow ma bés la boo xam ne yan yanzuru dana gis almaru as cam maa qaddamat li mu jiitaloon yadaahu ay loxoom maanaam yowmal qiyaam bés la boo xam ne nit ku nekk da nga fa fekk la nga fa defoon ku nekk la nga wax ci lu baax ak ci lu bon la nga def ci lu baax ak lépp di nga ko fekk ëllëg yowmal qiyaam mu teew yàlla wax na ko wa wajadu maa amilu xaadiran danañu fekk lañ jëfoon mu teew di leen xaar ku nekk nag muy lu baax ak muy lu bon allahu akbar su boobaa ñi fekk fa lu baax daal ñu bëgg lool mooy almuttaquun danañu am mafaasan waaye nag kàccoor yi seen bopp nag danañu rëccu ndax lu bon lañu def su boobaa nag yàlla mu ne wa yaquulu dana wax alkaafiru aji weddikatu yàlla ji dana wax alkaafiru saay-saay bi yaa laytani ay waay neexoon man kuntu ma nekk turaaban di suuf su boobaa kàccoor bi nga xam ne nekkuloon ci li neex yàlla ragalut yàlla bu gisee ay jëfam fekk fa njaalo yu bari mooy yàlla yu bari jël alalu jàmbur lu bari wax lu dul dëgg ak yeneen ak yeneen tooñ doomu aadama yeeg yooyu su ko fa gisee mu bari te xam ñi nër ta texe day wax ni ay waay yàlla ay waay neexoon ma nekk suuf nga xam ne du kenn du ma àtte ci lii ndax lii suñ ma ci àttee ma dem sawara kon bokkum jullit lii moo nekkoon sunu fàttalik tey nekkoon mujjug suratu naba i kon mbokk yi sunu bindub tey li mu jàngale mooy ragal yàlla képp a mën a sauver doomu aadama bi ëllëg ci kanamu subhaanahu wa taala ndax ku ragal yàlla texe waaye ku ragalut yàlla réccu dong ngay mujj ëllëg yawmal qiyaam mooy li yéefar yi di wax ni yàlla ay neexoon ma nekk suuf ndax kenn du ma àtte waaye su boobaa nag suñu borom ni ah c'est trop réccu day fekk jëf wees la ma leen santoon làkk ngeen lànk ngeen tey ñëw réccu day fekk jëf wees kon mbokk yi yàlla na nu yàlla defal ak ragal yàlla gu sax dàkk yàlla na nu yàlla defal tawfiiquk topp yàlla subhaanahu wa taala ci nam ko bëggee topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla musal ñu ci lépp luy ak mooy yàlla lépp luy ak wedd yàlla yàlla na nu yàlla defal jàmm fi duniyaaw fil aaxira defal ko mbooleem jullit wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.